nëbbu. asalaamaaleykum 100 pour cent Guédiawaye maa leen di ziar bu baax ah defati nañ comme nañ daan def rek ñoo nañ tey ci Moussa Fall indi leen ko carte de membre am kii ku xam Guédiawaye xam ko ci Guédiawaye ku xam sa Thiès xam ko ci Guédiawaye ku xam mbër yi xam ko ak mbër yi mu nekk koo xamante ne day jàppale mbër yi gis ko wane na ko jënd na carte 100 pour cent am. di wane ne moom mii kat ñu ngi ci 100 pour cent bi Alizé loo wax ci loolu. waaw di ziaraat waa 100 pour cent Guédiawaye bi Moussa Fall sa Thiès Moussa Fall Guédiawaye ah moom bu moom war nañoo ñëw ci moom ndax dugg ci Guédiawaye romb ko kon bu ñu ñëwee ci moom war nañoo ñëw ci moom jënd na carte membre am adhéré na ci san pour cent Guédiawaye bi di ko ñaan suñu borom defal ko tawféex ak taysiir xàccandoo dóorandoo ah ñeexu mbooloo mbooloo koy tuur. incha allah daanaka wax fi wax ci Guédiawaye laa bokk moom d'ailleurs kontaan naa trop Euh, sa vraiment nit ki moom amul lu goxam géejawaay la ñu am kon cent pour cent géejawaay bi ñu ko dekkalee nii ngeen taxaw taxaw yi ngeen ci taxaw nii man sant ngërëm rek d'ailleurs maa ngi ci biir di leen dooleel di leen jàppaleel ñu jàppaleente ci géejawaay laa bokk géejawaay ci kaw ci kanam jërë ngeen jërëjëf jërëjëf rafet na